waxoon naa la fekk chaque jour damay de dara di la ko wax doo ma gëm waxoon naa la sa patron bi nganda maamu doxaankat la. ay ay ay ëpp na de ëpp na de ëpp na. yow man maa ko gis gel bi doxaan sama xarit la gel bi nen la tudd sama xarit la. yow mii waaw nen na la tudd. Eh, nen ne nen téléphone am bu yàqoo man la koy xam ne maa may defaral chargeur am maa koy defaral carte mémoire am bul tuxam infrarouge am lépp lu mu yàqule place ba la may fekk andil ma ko ma defaral ko te nag dama la doon wax ngay xel ñaar naan ma da ngay wax wóoru ah nga ma kay ah bett nga ma de waaw jarul ma lay bett nag te am na lu ma la waxoon gëmoo ko nee naa la ñaareel man ay dox ba yem ci moom ne ko su téye ko andil la ko man mii yow eh, ci biir kër gi ci biir kër gi nenne bu ma wax nenne bu ma wax leen waaw <laughs> dama la mere yow nañ dem ndogu ji man laaw ma jot mais xaaral la prochaine fois ñu dem prochaine fois yaa gën a xam ne prochaine fois mun a am waaw dañ lay ping pong ngay aaye fee di aaye fii comment waaw foo yëgee loolu lépp laa yëg dëkk bii li fi waay di def na doon jàmm nen xam nga ni kële man dama dem rek mooy loolu quoi. loo def yow la waaye bett nga ma man dama laa bëgg waaye ñëpp yow lañ ma xamal man lan laay wax sam papa sam papa ñaata yoon la la woo di la waxi jabar nga may dawloo dama naan tey suba ba tabaski paase lu la nga wax ko dama naan affaire confirmant xew amatul lan laa la muñalul lu ma xam lu ne rek yaa ma ko xamal man loolu may wax yépp méttiw ma li ma gën a metti mooy ki nga takk sama meilleure copine nga takk. da am xadi. xadi xam naa xadi doomi Paa As. <laughs> neexul ba neexul nag waaye yow mii. day na de. bàkki yàlla man soo ma amul woon danga may créé soo ma amul woon danga may créé gis nga li may ñëw fii loolu yëpp. xam nga lal maa dañoo bokk dëkk nga nekk sama xarit te man loo ci xamul ay ins yu original yoo xam ne kenn daajeegu ko laa lay jël dina ko jox ins yi pour nga koy yow daal neexul ba neexul waaye yow ah. ins nga waaw waaw yow rek ins nga man waaw waaw léegi amul problème léegi xam nga nu ñuy def dama am dama bàyyi ma toog daal réalité temps parce que tey wax dëgg yàlla dama fi am envie yendu ñu waxtaan xam nga ma ndogu wax ma xaaraale ndogu sax ak ma koo xam yow mosoo ma wax Khady sa copine la tu m'as présenté Khady. jamono gi ak fu mu toll koo présenté copine boo présenté sa mu nangu ko te yow xam nga dama laa bëgg waaye kay wax la maa xaaratul lenn ak réew mi fu mu toll nii weeru koor gi nga may takk soo ko mënul nga dem ma dem. da ngaa décidé bu baax. caaxaanoo de. ma benn yoon lan lay wax samay samay waa kër lan leen di wax. ma ne benn benn weer ma takk ci ñaari jabar lu may wax nit ñi. waaye man dama la bëgg dama la bëgg ba ñépp xam ne dama la bëgg li ma la wax daal leer na soo ko mënee soo ma mënee takk ci weeru koor gi takk ma mënoo ko seeti leneen. nee dangay dem ni boo mu toogal fii ñu ndogu te loo ci xamul mooy ginaar yu baree baree bari moom lañ defar ndogu. ah kon loolu dina ma ginaar yoo xamante yii yow ñu bokk ñun ñëpp def ndogu. Ah. ndogu sax. kon suñu ndogu tey. moo yow man ak yow ak madame. waaw te loo ci xamul ah. patron ci ah, toogal toogal ñu ndogu. fii la ayee. waaw kay. kon garaawul est-ce que du am fu ma dugg rek. koo jëm non bàyyi ma dem parce que démb ginaar dama ko xaw a allergie quoi. déedéet doo toog ba ndaw. Ah non garaawul bàyyi ma dem parce ginaar laa xëddee ko ginaar dama ko allergie daal. doo toog ndogu ci ah ginaar yi ah non démb ginaar laa xëddee xam nga mooy loolu bàyyi ma dem daal. kon dangay dem damay dem. ma yow xëddee ginaar du tee nga ndogoo ah ginaar. ah non c'est bon c'est bon baax na baax na da sa bi doxatul. démb laa naan su may dem marché dinaa jaar sa place nga defaraale ma sama téléphone bi dafa yàq. amul problème waaw léegi booy dem marché jaar fa waaw maa da ngay dem nii ba ma daw gaayam ñu doon noonu ah. ah man de xaw ma lu tey doon ba kii ah, xaarul doon nekk ci yoon rek ay neex waaye eh, ku wax nit wax la ca des waa man waarul ma ah suñu patron moom day doxaan rek di doxaan rek kii sëb sëb ma dina bu bees sax et eh, dis-moi ana Ndiobo moom du reer. mi ngi reer ci waañ bi. lan. ah ngeen def la rus kay. rus. yaa ngi imaginer nit yam ci loolu. gisuñuy reer fii moom muy reer si waañ bi lu muy wax dañ ko ber wala dañ ko botti. ber. mais eh, loolu lay jur. Ah, dëgg la nag xam nga nit ñi dañoo moomatu sax seen laaj bi ñu ñëw fekk ko ci waañ ba teg ci seen bët xam nga ne wax ji day bari lu yoon. xam nga lan kooku mu ñëw reer ak hmm. Njóoba. waaw Njóoba. Njóoba. waaw tante. saf leen nag neexul ba neexul. <laughs> tante. nga reer te. moom wax na tante baal maa ngi reer ca waañ ba. eh toogal. ñëwal reer ñëwal reer mën ngaa bàyyi rek ñu ne ma reer fii rek nag. gaa yi ma la wax ne. waaye ci waaj ba tey. daa jëla laaj. ñu la bëgg togg. yow ba ñu jël ñëw di lekk miñ albert bi. wax naa ko moom daf la rus kay. loolu fi jeex. sa ginaar saf na de. def ah. nga ni nga daan def rek. moom du ginaar rek a saf. <laughs> xam ci dara. dafa am lu ma seetlu weeru koor bu jotee togg bu bees jus yu bees kaas yu bees taajin bu bees. waaw hmm? weeru koor daal ngeen di bañ daal te ma leen jaaxal. Ah. jus ngeen di jënd di ko defar jus naturel c'est bien mais dafa am ci marché bi même bu dul weeru koor. <laughs> yow de xanaa bokkoo ci. Hmm. yow lii ci nga dëkk. xam loolu sa yëf la. ah eh. <laughs> xam nga lu fi bees ak lu fi bees. mosul bees. ñoom de ñoom de jigéen ñi nii la ñuy def de. Hmm. man weeru koor damay gis ñoom daal ñoom seeni bagage dañuy bàyyi ba weeru koor ci leen mën a jëndee ay kaas ki kaw soog yu yu sew sewaat yooyu. Hmm. ay seeni sañse weeru koor kese lay génn doo ko gis bu dul weeru koor. <laughs> sëy yu weeru koor <laughs> doo doo comprendre doo comprendre. wuy ma gis nga béy bi bu fi màggee nag lay doon. wala mu fee doon nag dina génn ci biti. sama kër kañ la am béy gi nag. man de lan bëgg dàq kër gi tonton man de lan tuddee béy ba tuddee ma nag bi. yow waaw waaye maa ngi leen di bëgg a ëpp saas ndax tontoo man mi la faral.